tangi donu duba kuta dawu gar musaan borom petit kot bangi nonu bur salum duba kutal wayi mu ngay njap rang bursa salum angin nonu deh, bur salum duba kuta buur Saalum a ngi noonu borom Kër Moussa Anne borom Petite baa ngi noonu borom Somon sa borom Somon sa baa ngi noonu waaye ta abi Toubacouta si paw jande buur Saalum borom jamono buur Saalum a si paw jande moom mooy déranger waaye Bouki Ndangane si ginnaaw si baaw jan doomu Ndangane sabu baa noonu